ci ay simili yu néew ñu jox leen xibaar yu wér te wóor les minutes de l'info. salaamaaleykum suñu mbokk internet gars yi dañ leen di bëggee ñëpp. en fait euh, waaw bi mu defee déclaration ba pare c'est vrai que nag ñu bëri bari ñu ngi laaj seen waa Dakar nekk loolu si xalaat ak yooyu donc voilà en fait si euh, jàngat bi ñuy am si déclaration bi mu def bon xam ñun doon nañ ko accordé nag quand benn bénéfice de doute. doon nañ ko jox loolu même suñuy ni ñu doon traité suñu information yi depuis problème bi mu amee ba léegi doonuñu woon jël yenn position yi wala affaire yooyu dañ doon équilibrer information yi pour à ce que ñu mën a xalaat ni tamit moom peut-être li muy wax xëy na elle a ses raisons donc am na na fu mu ko teg bon Adji Sarr bi mu commencé wax bi mu xoolee da koy xool takk dafa toog rek ba da nga koy xool xam ne kii dafa sonn dafa sonn quoi waaw da nga koy xool rek xam ne dafa sonn déjà bon man dama ko xaw naa ko yërëm tuuti ah da xool xam ne dafa sonn benn mais ci biir coono boobu noonu Adji Sarr bu doon déglu voix am première voix am tak ba mu waxee rek dama ne kii moom moo doon ojo ojo yooyu parce que audio yi am na audio yu fiite woon ñu ne du moom mais moom la parce que benn benn voix bi la quoi pratiquement peut-être fii nii voix bi daf ci xaw a sonn ak bii dafa am concentration ak yooyu détail yooyu bon gis nañ ni dafa préparer discours donc c'est normal ah gars yi foog ñu leeral loolu c'est normal nit suy war ay wax dara <clears throat> surtout a àddina du Sénégal ndax bitim réew fu nekk nit ñi di déglu donc c'est normal nga préparer li ngay wax c'est normal nga noter li ngay wax ça on a disconvient même pas loolu duñu ko werante d'accord mais li ñu mën a wax mooy déjà dafa ñëw ci affaire Ndeye Khady Ndiaye li mu wax bon en tant a sori foofu peut-être également euh, voilà duñ ci sori trop mais bi muy ñëwee ci Ousmane Sonko donc li mu doon wax ci Ousmane Sonko li ci njëkk a li ñu ci njëkk a garaawal te mu jaaxal ñu trop Ousmane Sonko naka la mën a jugee këram ñëw jubal ci salon massage pour wër la yow indaala ñaar arm déjà benn lu ñu jaaxal yow Adji Sarr kan nga si dëkk bi ak lan nga ba wër kilifa bu toll ni Ousmane Sonko war a jug rek jubali seeku ñëw ba ci yow rek ni mel ne ku yow laa doon wër benn ngànnaay ñaar arme bon foofu rek déjà bon gëm la day jaxaw jafe te ñun gis nañ vidéo nga xamante ni environnement foofu décor bi ni mu melee bon c' est vrai que Malal Talla Fou Malade waxoon na ni nit bu xaw waree daanoo yooyu est ce que dina tal ay arme est ce que nekkul da seetaan vidéo boobu pour ñëw justifié ku ni Ousmane Sonko jëlul arme yi tiimaloo ko mais dafa teg arme yi pour xupp la donc foofu mën nañ xalaat ni donc bi nga demee bay def vidéo Adji Sarr mënoon nga peut être surtout yaag sa avocat donc c' est vrai que liggéeyam lay def mais n' empêche que mu ñu ngi doon imaginer ngeen indi sax au moins benn expert de yooyu pas koo xamante parce que en fait c'est trop amateur quoi wax bi dafa amateuré euh, bon amul cohérence en plus tamit si yi en même temps nga wax ba mu yàgg ñu dagg la xam nga bon foofu gëm la du yomb beneen côté bi mooy man lu may gis yow ah lu may gis yow tak bu ma la xoolee xëy na sonn nga ma yërëm nañ la mais gisuma si yow benn nit bu am kersa waaw bu ma waxee dëgg gisuma nitu kersa si yow su ma la fixé fixé waat la gisu gisuma ne jigéen bu am kersa nga parce que damay sentir boo waxee ba xaw a avancé avancé say baat bu xawee tàng tuuti da ngay da ngay naturel foofu te nit bu naturel ngay ngay dégager foofu te nit bu naturel boobu ngay dégager mooy wane que ni yow mi naturellement nekkoo nit bu calme. benn ma loolu laa gis nekkoo nit bu sedd quoi boo xamante ni da nga nga complexe wala affaire yooyu bon gis nañ ñi nga setal Maodo Malick mbay bon gis nañ tamit setal bi xel dina fa teel xel ñaar parce que da nga ñëw rek xaw ko setal sama doomu ndey la sama lii la sama lii la man début bi li ma doon faral di wax ak samay xarit tout le temps dama doon wax moom lii yëpp moo ko teg boppam bu dee moo def bu dee deful maanaam bu dee dafa tooñ Ousmane Sonko xëy na moom moo ko teg ci benn côté parce que amaana dafa doon toog di wax naan damay maase Ousmane Sonko am na kilifa bu may seet si ba kooku jot si kooku ba mu si jotee nag jox ko keneen jox keneen keneen Maodo Malick mbay boobu noonu euh, jarbaatu Maodo Malick mbay boobu noonu moom tur bi jàpp moo ko na ngeen baal ma bon moom Marron di Feu la bokkoon gars boo leen xoolee ngeen remonté photo yi bu yàgg-yàgg si Marron du Feu yi la bokkoon maanaam ñi nga xamante ni su président Macky Sall doon ñëw Thiès wala Maodo Malick Mbaye di def ay tournée gars yi doon taxaw si kanam di sol seen buddi di jaay ngande booy boobu si ñooñu la bokkoon kon moom pur produit APR la pure pour à tête boo leen déggee si PV yéen a doon dégg sax souvent ñu wax ni bi mu njëkkee wax commencé la doon dégager euh, million exemple ni la gisuma la gisoo ma dem yoonam bu la presse bu wooyee da nga naan gisuma si politicien rek ah, si lu xel mën a jàpp rek asama laag lu toll ni président de la république donc foofu moom euh, c'est à discuter waa ay gis na laa gisuloo donc duñu ko mën a ko mën a gëm déjà si sa si sa langage sa façon de regard ak euh, bon fooy beeg micro bi gars yi ñuy wax ay fooy beeg micro bi bon yooyu garaawul quoi yooyu moom pour man nekkul détail yu yuñ yoo xam dañ ci mën a sori fi ñu mën a sori mooy li muy wax est-ce que c'est cohérent ou pas bon li ñuy waxaat tamit ba léegi si analyse bi ah donc euh, jëluñu ay pàcc pàcc dañuy wax rek directement mu mu xaw a mu leer jëluñu naan dañuy démarrer fii domaine dañuy wax rek après ngeen déglu quoi bon li ñu si gën a jaaxal bokk na si moom par exemple Euh, je pense que Ousmane Sonko dafa am euh, maanaam euh, yoon def ko def ko def ko maanaam sous contrôle judiciaire la nekk n'est-ce pas donc que ku nekk si sous contrôle wax si yenn dossiers te yoon def la koy très souvent boo xoolee ndeexari jaay loolu ko juge bu waxoon donc peut-être am na njort ni moom mii di aji Sarr loolu la ko yoon waxoon maanaam bu wax ci dossier bi mais ni ñu déggee ni muy waxee moom dafa ñëw comme si que dafa wane ni état bi yoonam nekk si man ak Ousmane Sonko la te ba ma koy def xalaatu moo ni lii dina si am ci biir dégg-dégg maanaam ñoom wa boo dégloo ni ñu wax dafa mel ni waa APR dañ ko jël ñu ko am waxal mais génnee ñu si fexeel noo ñu si génnewee léegi ñun boo ñu si génnewee comme gars yi nañu seen débat ay ñii ñoo deew ak ay complot la débat bi du nekkul nekk complot mais débat bi mooy problème man la ak Sonko léegi mais nekkatul Sonko ak waa APR. gars yi da ngi bu baax a baax ah donc voilà affaire bi daal dafa dafa dafa dafa compliqué naxaree lijjanti mais ja yomb na naqaree lijjanti mais également yombal lijjanti. parce que nag vraiment aji saar bon audio bi moo xaw a gudd nag quand même désolé mais Adji Sarr vraiment euh, jar woon ngay wax ndax sax sama statut maa ngi bind Adji Sarr bu ne la waxal looy wax ah buñ ne la waxal looy wax ba waxee ba pare ñu bari naan Ouzin yow looy wax yow <laughs> donc voilà mi ngi noonu loolu mu lañu amoon ci jàngat bu ndaw ah ci Adji Sarr mbir maa ngi noonu jaajëf gars yi bégee ci ay simili yu néew ñu jox leen xibaar yu wérte